sëñ Ahmed Saloum nee na asalaamualeykum wa rahmatullah. Cheikh Mouhamadul Bachir. ibnu Cheikh Abdoul Khadir. ibnu Cheikh Abdoul Khadir Mbacke. mi nga xam ne moom mooy ki yor kaddu yoonu murit. هذه الوفود التي جاءت من مختلف الطرق الصوفية هذه الوفود التي جاءت من مختلف الطرق الصوفية من تياون من كاولخ من شنبة من نجاسان جاءوا لإحياء هذا اليوم المبارك جاءوا ليساهموا في الدعوات الخالصة التي ندعوها للوالد, للوالد المرحوم فريد الشيخ عبد القادر مكي الذين كان إماما لهذا المسجد أكثر من 25 سنة و شخص كان في خدمة المسجد وخدمة الإمامة wa xidmati ahlillah wa xidmati almuhtajin mawlana cheikh abdul qadir mbàkke walidu cheikh mahamadul bachir kama yahdur aydan min janibi atruq sufiya majmua min sufara min baynihim safir libya allazi yahdur maana hadi aljalsa wa mumasilu safarat falastin wa mumasilu safarat jumhuriyat misra al arabiya wa rais baladi Thiès al ustaz Babacar Diop kon Cheikh Mouhamadul Bachir. waaw Cheikh Amadou Salim Dieng nee na kon yow Cheikh Mouhamadul Bachir. ni ñu ko daan defee at mu jot rek. ni ñu ko baaxoo defee at mu ne. ci sa yaatal. ci sag yaatal. ak sa ubbiku. ak sa ubbeeku. ak sa yitte. ak yitte ji nga am. ci lu xew ci réew mi. ci lépp lu xew ci réew mi. ak fu mu xewee. ak fépp fu mën a xewee. da nga fa teew. da nga fa teew. wala sa ndaw teew fa. wala nga yónnee fa ndaw mu teew fa. moo tax boo wootee. looloo waral boo wootee. lu mu lu mu xat-xat. ak loo ko xatal-xatal. ak loo ko ñàkk-ñàkk a woote. kenn ku ne jàpp ne mënut a ñàkk ñëw. kenn ku ne day jàpp ne mënut a ñàkk ñëw. moo tax ñoom ñëpp ñu teew tey. loolu ma waral ñoom ñëpp ñu bokk teew tey. tarixa yëpp a ngi fi tey. tarixa Sénégal yëpp teew nañu. te ñi teewal tarixa it ay kilifa lañu. te ñi teewal tarixa it ay kilifa lañu fa. waaye mu tàmbalee ci ambassade yi nga xam ni. waaye mu tàmbalee ci corps diplomatique bi nga xamante ne. ambassade Égypte ñu ngi fi. ambassade Égypte ñëw nañu ambassadeur bu Libye mi ngi ni toog. monsieur excellence monsieur l' ambassadeur de la Libye mi ngi ni toog. ambassadeur de Palestine mi ngi ni toog. excellence monsieur l' ambassadeur de la Palestine mi ngi ni toog. ambassadeur du Maroc bëggoon naa ñëw ba démb. excellence monsieur l' ambassadeur du Maroc bëggoon naa ñëw ba démb. la am gànt lu ko dab. waaye dafa mujj am gànt lu ko dab. mu woo ma woo téléphone wax ma ko. mu woo sëñ Ahmed Saloum Dieng téléphone wax ko ko. yemu ci mu bind lettre yónnee la ko. yemu ci mu bind lettre yónnee la ko yow Cheikh Modou Bachir. signé ko ci boppam. signé ko de sa propre main. ngir wan la ne bis bi ñor na ko lool. maire Thiès Babacar Diop mi ngi ni toog. monsieur le premier magistrat de la maire de la maire de Thiès de la maire de Thiès monsieur Babacar Diop mi ngi ni toog. di sa xarit di sa soppe. di sa xarit di sa soppe. Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Nouréni. sa xarit Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Nouréni le général de Bamba. yabal na fi njabootam Kara sécurité. yabal na fi waa këram muy Kara sécurité. yebal fi nijaayam Serigne Modou Ngom. yebal fi nijaay langayam Serigne Modou Ngom. ngir mu teewal ko fi. ngir mu teewal ko ci sa bis bi. docteur Abdoul Aziz Kébé. docteur Abdoul Aziz Kébé. di sa soppee di sa xarit. di sa soppee di sa xarit. kenn ci yow. di kenn ci yow. teew na fi. mi ngi nii teew. Euh, Cheikh Ahmed Tidiane Samb. Cheikh Ahmed Tidiane Samb. jiite ONG Al Ansar. jiite ONG Al Ansar. mi ngi fi. mu ngi fi teew. Cheikh Seydil Mokhtar Kunta. Cheikh Seydil Mokhtar Kunta. di xalifa Baye Sid Lamine Kunta bu Njaasaan di xalifa Baye Sid Lamine Kunta bu Njaasaan di sa xarit di sa soppe mi ngi fi teew oustaz Mouhamed Fall bu TFM oustaz Mouhamed Futur Média teew na fi mi ngi fi teew sëriñ Maodo Cissé bu Pire sëriñ Maodo Cissé bu Pire mi ngi fi mi ngi fi teew sëriñ Malick Ba Serigne Malick Ba. di porte parole xalif général xalif Bambilor. di porte parole xalif Bambilor. di ku la sopp lool. di ku la sopp lool Mbacke. di ku am jàmm ak taalibe Serigne Touba yéen a ca dëkk ba. di ku am jàmm lool ak taalibe Serigne Touba yéen a ca dëkk ba. léegi la ko sëñ Mamour Boussou di seede. léegi la ko sëñ Mamour Boussou mii di seede. te sëñ Mamour mooy imaamu Bambilor. te sëñ Mamour mooy imaamu Bambilor. kon lu mu seede foofu rek dëgg la. kon lépp lu mu seede en tant que imaam lu wér la. imaam Dame Ndiaye. imaam oustaz Dame Ndiaye Ahmed Dame Ndiaye bu 2STV. bi nga xam ne moo jëlee euh, ligue des imams et prédicateurs du Sénégal. bi nga xam ne moo jëlee ligue des des des imams et prédicateurs islamiques du Sénégal. teew na fi ànd ak imaam Aboubacar Faye. teew na fi ànd ak imaam Aboubacrine Faye. délégation Tivaouane. délégation Tivaouane. jóge ci sa kër soppe ba. jóge ci sa kër soppe ba. Cheikh Abdoul Aziz Al Amin. Cheikh Abdoul Al Amin. sëñ Assane si moo leen jiite. Cheikh Assane si moo leen jiite. ànd ak xaar yi dëkk ba di sëñ Mor Mbaye. ànd ak xaar yi dëkk ba di sëriñ Mor mbay sa taalibe. sa taalibe. sa lépp. di sa lépp. di ministre Talla Sylla mi ngi fi. di monsieur le ministre Talla Sylla mi ngi fi. El Hadj Idrissa Gaye. El Hadj Idrissa Gaye. jiite asxaabul kahfi ci Sénégal yëpp. jiite jiite asxaabul kahfi ci Sénégal gépp. di conférencier international. di conférencier au niveau international. moom it teew na fi. moom sëriñ Madika Seck bu Cenaba. sëriñ Madika sekk bu Cenaba. di sa xarit di sa soppe. di sa xarit di sa soppe. teew na fi. mi ngi fi teew. ànd ak sëriñ Cheikh Tidiane Seck. ànd ak sëriñ Cheikh Tidiane Seck. xalifa Baye sëriñ Modou Seck. xalifa Baye sëriñ Modou Seck. Euh, sëriñ Dame Ndiégène. sëriñ Dame Ndiégène. teew na fi. mi ngi fi teew. ànd teewal fi waa waa Ndiégène yëpp. teewal fi mboolem waa Ndiégène gépp sa soppe sa xarit. sa soppe Mbacke di sa xarit. Serigne Ngagne Demba Sarr. Serigne Ngagne Demba Sarr. porte parole du xalif général de Thiénaba. porte parole du xalif général de Thiénaba. yónnee na fi ay teranga. yónnee na yu bari. yebal fi délégation. bu rëy. ki ko jiite mooy Serigne Alpha Seck. ki ko jiite mooy Serigne Alpha ak Serigne ma di Jibril. ak Serigne Madika Seck. Jibril. Jibril. ak sëriñ Cheikh Ndaw. Ndaw. waaye ñoom ñëpp nag. waaye mboolem ñoom ñëpp nag. bi ñu ñëwee. bi ñu dikkee. ki leen dalal. ki nga xam ne moo leen dalal. teeru leen. teeru leen gunge ko ci liggéey bi mooy sëriñ Modou Mbacke Abdoul Wadood di kenn ci yow di kenn ci yow Mbacke di ko baax di ko baax di ko woyof di ko jaxasoog ñëpp kon nag Mbacke moom da doon lim rek délégation yi fi teew kaddu gi nag kaddu gi nag ni ñu koy defee at mu jot rek ni ñu koy defee chaque année dañ koy jox ñi fi teewal dañ koy jox ñi nga xam ne ñoo fi teewal Cheikh Abdoul Aziz Al Amin Cheikh Abdoul Aziz Al Amin ñu joxal ko ñu joxal ko ñu wax ko ñu wax ko ci turu mboolem ñu fi teew ñëpp rek wasalaamualeykum wa rahmatullah dees koy far bàyyi waaye ndigal li ñu fi teg waaye ndigal li ñu fi teg moo ñu yëkkatiloo kaddu moo ñu yëkkatiloo kaddu kaddu innamal mu'minuna iqwatun innamal mu'minuna iqwatun fa aslixu bayna axawaykum kaddu googule mooy li ko waxloo moom. muy kàdd goo xam ne. muy kàddu goo xamee ne. mi ngi jóge ci njabootu. mu ngi jóge ci njabootu. Cheikh Abdoul Aziz Al Amin. Cheikh Abdoul Aziz Sy sëriñ bi jëm si ci yow. jëm ci ci yow Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khadir. ci Al Amin. ci ndigalu xalifa ba sëriñ Babacar Sy Al Amin. ak ay rakkam. ak ay rakkam. ñi ko bokkal ñëpp. ñi ma ko bokkal ñëpp. jëmee ko ci way juróom baax wi. ko ci way juróom baax wi toog. di Cheikh Mouhamadul Bachir. di moom Serigne Abdoul Khadir Mbacke. ko ñaanal yàlla. ne ñu ngi lay ñaanal yàlla. lépp loo xam ne wajur wa naroon na ko dund. demu yéene ko ci yow. yàlla na ko yàlla def sa jëmm Mbacke. ak mboolem ñu ngi ko bokkal. nee nu ñëw nag. fekk fi mboolem turux yi nga xam ne. foog fi mboolem turux yi nga xamante ne. ñoo nekk ci aafaax. ñoo nekk ci aafaax. muxtalifa yi. muxtalifa yi. fii ci biir réew mi. fii ci biir réew mi. kaddu gi. Euh, Ahmed Saloum. Cheikh Ahmed Saloum Dieng. Nasiru Diin. Nasiru Diin. ñoo ngi koy nuyu bu baax. ñoo ngi koy nuyu bu baax. moo nañ ko jox suñu mag. moo nañ ko jox suñu mag. docteur Abdoul Aziz Kébé. docteur Abdoul Aziz Kébé. ndax moom. mooy taawu Serigne Abdoul Aziz Al Amin. mooy taawu Serigne Abdoul Aziz Al Amin. fa tabaarakallaahu. fa tabaarakallaahu. ndax mook Serigne Babacar mi ñu yabal. ndax mook seriñ Babacar mi leen yabal. du ñu ñaar. du ñu ñaar. benn jëmm lañu waaye jenn jëmm lañu. ñu ànd ak xaadi. ñu ànd ak alqaadi. imaam Alhaji Mor Mbaye. imaam Alhaji Mor Mbaye. di jarbaatu Serigne Abdoul di jarbaatu Serigne Abdoul Aziz. Serigne Mansour Seck. fu Serigne Moustapha Al Amin. fu Serigne Moustapha Al Amin. di dem di dem rek. moo koy moom moo koy conduire. tey nag. mboolem usur yi nga xam ne mboolem usul yi nga xamante ne ay usur at tariqa yi la ay usur at tariqa yi la ad diiniya ad diiniya ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñëw ñëw nañu pour rek pour rek euh, feddali wëllëre feddali kóllëre ndax ndax sa maam sa maam Cheikhul Xaaji Malick Cheikhul Xaaji Malick radiyallahu anhu radiyallahu anhu moo bind wax ni moo bind wax ne fa fil ifaa'i fa fil ifaa'i ifaa'un ifaa'un fa awfuu fa awfoo wa naqdul wa naqdul ahdi ahdi min fixlil min fixlil fusuuxi fusuuxi loolu nag loolu nag dafa bokk ci li nga xam ne dafa bokk ci li nga xamante ne inna al ahda inna al ahda kaana anhu mas'ula kaana anhu mas'ula loolee nag loola nag matal wëllëre googee matal wëllëre googee moonu indi fii moom moonu indi fii ndax sa mbokk mu baax ma ndax sa mbokk mu baax ma sa soppe bu baax ba sa soppe bu baax ba Serigne Abdoul Aziz Al Amin Serigne Abdoul Aziz Al Amin ci dundam ci dundam nii la ko daan defee nii la ko daan defee daan ñu boole daan ñu boole ak kilifa ya ak kilifa ya ñu ñëw di la fekk si ñu ñëw di la fekk si fii kon nag tey ñoom ñoo ñëwaat ñoom ñoo ñëw fekkat fekkaat la fi fekkaat fi ak kilifa yi. di la seedeel ne ne. njaboot gi nga xam ni. njaboot gi nga xamee ne. ñoom nga doxale sa diggante ak ñoom nga doxale sa diggante ñoom. ñoom ñëpp ñoom ñëpp. ñoo ñu tedd. ñoo ñu tedd. Euh, Talla Samb. Talla Samb. dëkk Tiwaawan. dëkk Tiwaawan. di ko baax Cheikh Nasiru Diin Cheikh Nasiru Diin di ku baax di ko baax kaddu yooyu daal kaddu yooyu daal sëriñ bi sëriñ bi moom la ñun indi rek moom la ñun indi rek muy kaddu cant teg ko ci sa loxo fa tabarakallah Cheikh Mouhamadul Bachir wa Abdoul Qadir kàddu yi may bëgg a wax day kaddu ndigal te sama sëriñ Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour dama daan dégg mu naan ndigal ndigaale ndugal ndigal a tax ma wax waaye sani atan simi wax yóbbaale géew ñi teew ñëpp di nga xam ne boo ko xoolee di nga xam ne nitu yàlla la di nga xam ne nitu jàmm la di nga xam ne nit ku tedd la nee na mbégte mi mu am mbégte mu rëy la moo xam ne sax mënu koo wax kon nañu xam ne mbégte mi mu am mi mi ngi ko jaare ci xaritam di soppeem di léppam Cheikh Ahmed Saloum naa Nassourdine mi nga xam ne li ramadan fadlan atiman xad ku la jàpp jàpp sëñ Muntaxa ku la bàyyi bàyyi sëñ Muntaxa ñun day mbàkki jàpp nan la te duñ la bàyyi ba mukk di woo ñëpp nag ñi man di wax ak yéen sëñ Tuubaa rek laa bëgg a fee ma nekk ci pencum ndaw réew mi di liggéey sëriñ Touba ak diina ji loolu rek laa bëgga a doon bëgguma nekk leen bu ma amee daal mbàkki seen ngërëm am naa lépp di wut seen ngërëm nag moo ma jaral lu nekk ba ar bu ñu yëkkati sama kàddu intérêt Touba rek tax ma koy yëkka kon mbakke maa ngi lay seedal ni ñu ngi gën a fetlu suñu kóllëre ak suñu taalibe yi mboolem ñi fi teew. na leen wér sëriñ bi daal kontaan na bég na mu ngi leen di ñaanal di ngeen fi indi ci aw yiw muy ay tànk yàlla ngeen yóbbuwaat yiw للوالي يسعى وإني اليوم سوء توسلي له بأسماء سوي التفضل ci biir moo ëppale ci kaw kon ñu ngi la ñaanal nga yàgg fu loolu te wér صل على الذي بي تجيب واقبل به نسمي يا كريم وهب لمن به يناجي ما يروم ربي بنوح وبإبراهيم yëkkati kàddu fii ci kanamu Serigne Bachirou Mbacké moom Serigne Abdou nee na nag yal na leen yàlla dolli gërëm te dolli seeni kaw def nee na saxaadata sufara bi urmati sidiqi wal faaruqi yéen ambassadeur yi nga xam ne wa tawfiqi nee na yéen a teewal seeni réewi lislaam ya nga xam ni قبلي في دنياي ما أخرايا النور والهون والمسايا نينا صحابة الأئمة وبي سبيري وأقصى الذين خدروا من هذا المكان وبسحين ومن عوف النجم وشاركوا معنا من كل ما أقابوا في الخاز اليوم المبارك وبأبي حبيدة جمع يبيت إلى جنابي وفي عني ما يبيت ميلادك سيح عبد الخادم أيها التي العباس كسر المي زاده الله نجي العمراء وإكراما في الدحبا ما يجر دارا وفي الآخرة ابن مسعود وجاء النساء خن البلاء والدر عين وكلام يا ربنا بحرمتنا بادي وأمسة عنك في كل بادي يا ربنا بحرمة العبادي وأمسة عنك في كل بادي بحرمة الحسين والحسين julliya fi daarayni bi nuurayni bi hurmatil qaasimi summa taahiri safi sawaayiri amaa damaa'iri bi hurmati tayyibu ibrahima adima layya bisra wa takriima bi jaahi faatimata afti nafsi an kulli maa yajuruni li abusi ci jataay bi nga xam ni jataayub lislaam la xam sëñ Tuubaa ak jullit yépp boo ñëwee ci jotaay bii da nga xam ni liggéey yub sëriñ Tuubaa réerul ñim fi bàyyi nee na téyel nañ ko ko Cheikh Mamadou Basir mi ngi leen di sant teew. yéen ambassadeurs yi fi teew. ak yéen kilifay diine yi fi teew. ak yéen kilifay diine yi fi teew. bàyyi koo ci barab yu fasanti ko. bàyyi koo ci barab yu fasanti jamono ju xat. nee ngeen ñëw nag ci jamono ju xat. ndax yittey adduna yi dafa bari. ndax yittey adduna yi dafa bari. waxtu wi it tàng na. waxtu wi tamit sëriñ bi nee na tàng na. xaw naa nawete itam. nee na it eh, dafa mel ni xaw naa nawete itam. waaye coono yi aju ci yooyu yëpp. waaye coono yi aju ci yooyu yëpp. gisu leen ko. nee na gisu leen ko. ngir yàlla. ngir yàlla. ak jëmmam ji. ak jëmmam ji. ak borom bis bu mag bi. ak borom bis bu bi. nga xam ni jëmmam. nee na nga xam ni jëmmam. day jëmmal istiqaamatu. day jëmmal istiqaamatu. di jëmmal xufraanu minallah. di jëmmal xufraanu minallah. njëggalu ko sunu borom. njëggalu ko sunu borom. feeñee ci jamono. nee bi nga xamante ni Cheikh Abdou Khadir Mbacké feeñ na ci jamono. Serigne Touba dafa wax ki ko doon joxe aw tur. Serigne Touba daa wax ki ko doon joxe aw tur. ni ko li feeg ngay dem. ne ko li feeg ngay dem. ba ba ngay dellu si. ba ba ngay dellu si. koo fi gis. koo fi gis. wala mu gis la. wala mu gis la. sunu borom jéggal ko. yàlla sunu borom jéggal na ko. kon say jéego na nee na kon say jéego na gàtt. ngir yàlla ñi lay gis mbari ñi ngay gisit bari. ñi ngay gisit bari. loolu mooy Cheikh Abdou nee na kon moom dafa ñëw di yërmande sëñ Touba it sotti ci moom istixaamatu nee te diine ba diine jeex mooy al istixaamatu xul innama ana basharun mislukum yuuxee ilayya nee na loolu yàllaa ko wax nee na nee na yàlla na ilaahukumu ilahun ni waahidun ni fastaqiimu ilayhi ni wastaxfiruhu nee na yàlla sunu borom daax yonent bi ni ko mu mu ne ko fàttalil jullit yi ni leen man rek may yàlla mu ne ko aw ma ñaareel nee na te ñoom ñëpp it nangu woon nan ko ndax yow ma alastu sunu borom dafa bind ruu yëpp taxaw ñu nee na ñun ñii fi teew ñëpp suñuy ruu wuute ko woon nee na ak ñeneen ne sunu borom laaj ab laaj ne alastu bi rabbikum ndax duma seen borom nee na ñëpp seede nee na ñëpp ne xaaloo ballaa ñëpp ne ko ankay yàlla moo tax ci aay bi ma wax léegi nee na dafa wax yonent bi ne ko waxal julli diini man maay seen borom nee na bi tawxiid jooju jàllee nag nee na istixaamatu la ca teg muy fastaxiimoo ilayya jóg leen jëm si ci man te jaare ko ci al istixaamatu istixaamatu mooy doo jàdd ci ndeyjoor doo jàdd ci càmmoñ doo gersu ndee te it doo dëpp da ngay dëgmal rek nee na nag lu jafe la sëriñ bi ne jafe jooju moo taxoon sa sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ko sunu ni fastaxim ni kama umirta neel cocc ni ma ko digalee nee na tax mu ni ni say yabat nii nee ni say yabat nii suuratu xuut nee bi ma yàlla waxee ni fastaxim kama umirtu nee na wax diis ba njàqare nee na daf maa yóbbee njàqare ba sama bopp bi jaaw ba sama bopp bi jaaw nee na te sama bi jaaw jotut nee na kon xam na la responsabilité la muy nee na loolu mooy istiqaamatu ku ñuy wax euh, Soufiane ibnu Abdullah. ku ñuy wax Soufiane ibnu Abdullah. dafa ñëw ci sallallahu alayhi ne ko damaa bëgg. ne ko damaa nga dénk ma loo xam mu ne ko yow yeneen bi nga dénk ma loo xam ni. dana ma jariñ. dana ma jariñ. tey dootuma ko laaj keneen. tey dootuma ko laaj keneen. yonent bi ni ko. ne sallallahu alayhi wa sallam ni ko. faxbut rabbaka. mu ne ko faxbut rabbaka. jaamul yàlla sa borom. nee na su mastaxim. boo ci noppee na nga teg ci istixaamatu nee na istixaamatu nag lu jafe la. moo tax suñu borom bi mu nee fastaqiimu ilayhi. nee na wastaxfiruhu la ca teg. nee na li tax yàlla lënkale leen. nee na jafe gu istixaamatu jafee tax. boo jógoon jëm ci sa kilifa mu woo la. nee na lu nee na bu la sa kilifa woowee te lu yëngu lu nekk nga gersu. ku la wooyee nga dëpp. nee na ku la wooyee te nga dëpp. nee na nekkoo ci la la war. nee na fastaqimu ilayhi. doo gersu. doo gersu. doo dëddu. nee na da ngay jublu rek yàlla. nee na te nga taxaw nak ci wasatiya. nee na nga taxaw ci digg bi. nee na sunu wayjur wi. nee na sunu kilifa gii laa bëgg a wax. di Cheikh Abdou Khadir. di la meloon noonu yi rek la meloon. te ñaanuk Serigne Touba la. sëñ Touba dafa wax ni. sëñ Touba dafa wax ni. xabli istiqaama. sëñ Touba dana xabli istiqaama. xabli istiqaama mooy. nee na nag xabli istiqaama mooy. yow sunu borom. yow sunu borom. may ma Cheikh Abdoul Khadir. may ma Cheikh Abdoul Khadir. ndax Cheikh Abdoul Khadir mooy istiqaama. ndax Cheikh Abdoul Khadir mooy istiqaamatu. kon ñu ngi leen di sant bu baax. kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax. nee na ci turu sëriñ bi. di lu seen teewaay. nee na yéen sunu mbokk yi def ngeen lu rafet. def ngeen li diine laaj. def ngeen ni dëkkandoo laaj li ci sunu borom digle nag ci pay nee na yéen ñëpp ci daraje si Abdou Khadir na ngeen ci tase bu kawee seen njortu moom mii di seen Mamadou Basir ni mu def sëriñ bi rek la ko ñit ñi def nee na sëriñ Touba dafa am fut la nee na te fut laam jooju da cee taas boo jàppee sëñ Touba te boole woo ko dara suñ tubaa moo lay boole murid yi murid yi jàpp la te duñ la boole dara wa min sahaadatil ne ni xaysu warat an laa yaruddahu ni fuaadu si rasat bokk na ci daluk xeluk nit ak jàmm ji ko yàllay defal mooy ku baax ku ne bëgg la nee ku ñëpp bëgg ku ne amul waay ku ñu baax ñëpp bëgg am na nee na ku bàyyi xel Cheikh Mamadou Bachir ku ne nee ku bàyyi xel sëñ bi ku ne nee na ëmbal ko Cheikh Mamadou cofeel ngir jëmmi Serigne Touba ñu ngi sant ñëpp ñu وقربتي وغيرتي ولحني عني أزال كربي وحزني وذكره الحكيم صار مخرمي أسأله تسقيه بطبني في كل ما لوجهي ليبني على لم يستحب الذي لم يلني حتى فما ينله جل يمني سهرني الشيء الذي لم يهني لي قبل فهو ما يسقي يهني فجاءني بما ينير دمني فهو كريم فضله لم يكمني يذكره كلي بعد قتني على الذي اقتفى وما لم يقتني ثبتنا على الهدى المبين بجائز الخلق العظيم البين فعلت كل كلمة وعبده بالمصطفى جعلني مثل كريمتي يقول كن يكني ولي يكمل الذي لم يكني مثل كريمتي يقول كن يكني وحدي دواما ملكا ناجيته مستقيا فأشكى فسرنا أبي ضر أشكى فجاءني مني بسر بكى أعناق من أرسلت وسكى عني عطاه لكل بالأبكى به فزدني علوما من دار فجأتني بما أزال ركا عن ناقتي في سيرها والقتال يسوقها جسد يحوم الحركة من تود سيحا على هالبكاء ملكتني من قلب ينسي انتاك شر التناسل وفاق السلكات képp kuy jullit war a jug jaajëfal xadim mi nu may xel mu dal mi tax ku ne jug wax mbiram te kenn du ko roy diine dañ ko daan nabu ak laaxatoo ka bañ ku la rey sëñ bi ñëw na maay na ma dal diina maa ka fii sawe tey tey ku di bilit boo xamee nay saxal ji sant bu wér seexun alxadim jërëjëf mooy sangum yonent yi way yàlla wax na ki jërëjëf bi nu ñuy saxoo jërëjëf kon ku toog waxoo jërëjëf ak ki ñaanalay xala rey maa ngi giñ wallaayi ku bañ sëñ bi aw naqar di la rey aw turam fu nekk la dem ay bindam di dem fu na tey koo fi dégg ñuy tagg ak baaxam ak di wax la mu def fekk waxul ne kii jërëjëf àggagul ca yàlla mi doy ajjanaag la nekk ca biir gis ko gis la moom a gënal saa cofeel gi nekk ci yow jëm ci mën na doon lu ma rey tey sëriñ bi waaji ko mas loo mosa du saf moo fi boole caf koy neex yëpp yar ko moo gën a doy jërëjëf dafay tamit أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون barke Borom Tuuba أنت الرحيم الصمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان أنت رعيم السمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وسخ إلى الأعداء كل داء والتحم داري عن الفجور والفسق والباطل في دهوري وانفي الوباء والبلايا كلها عنها وطيب تربها واكلها واجعل حريمنا عريما آمنا وكن بحفظه كفيلا دامنا واجب لها الخير من الجهات الست واكفها عن الآفات حطن عن السيطان يا جليل ومسكني وكلما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالهقر نفسي وديني ثم أهلي والولاد ومسكني لك وديعة الأبد وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما النسر في الرسايا wasrif asaab annaari an jumlati man bi yataallaqu min abnaai zaman wa jumlati alixwaani min aqaaribi fi ddiini aw fi ddiini wal ajaanibi falyakun xisnan wa dëban yaa samaat تولني ولا تكلني للأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وصليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك وليهب حسن الختام عن آله وهب لي الإجابة والتصرف الصلاة للصوابة عن آله وهب لي الإجابة نعم الرجال لهم مجال نيلوا ونالوا وقت العناء رد السميع على جميعي يوم الخشوع يوم النداء أرباب خير أرباب ديري uur fi nga sànni njaboot sëñ baara sëñ Abdou Khadir de seqoon na ko ñoom lu ko jiitu ndaxte mën naa wax ne doomu sëñ baara joo dugg këram li ci ëpp sëñ Abdou Khadir nga fa kon seqoon na ko ñoom mën naa wax tamit ni am na doomi sëñ baara yoo nga xam ne sëñ sëñ Abdou Khadir lañ defoon muy seen féete euh, sëñ Cheikh a koy wax léegi sax kon mën naa ñoo wax ne jitaay bii jitaay bu yàgg la te ña ko jëmbatoon itam sori nañ waane nag loolu lépp li muy yàgg-yàgg li muy bari bari li muy doon doon dëgg ndax ñi ñi ëpp ci guy mbind bi ñu fi bàyyi ko sëñ Abdou Khadir moo leen taxaw loolu lépp nag la muy yàgg-yàgg ak la muy doon doon dëgg la muy rafet-rafet yow li nga diggaale ak waa guy mbind kese nga xam ne si jëmmi bopp jii ak sa jikko moo ko dox jëf ko wax ko ñëpp teg ci seen bët loolu dafa doy sëkk ci sunu ci wuutu kon ma bëgg nga xam ne sa jikko ak sa jëf wuutu na la fa guy mbind nga teew fa ak nga ñàkk faa teew te itam bu du woon loo jëf deesu la ko wax ndax ndax jot naa ni kenn ku nekk yor nga say bët yor nga say nopp te yaa ngi déglu yaa ngi gis kon nag Sëriñ Moustapha nee na mu ngi lay sant mu ngi lay gërëm te itam lépp loo xam ne toog na ko fii jotaay bu mu fi toog lu mu yàgg-yàgg tuuti na ci moom lépp lu jëf ju mu fi indi itam lu mu bari bari tuuti na ci moom mbooloo mu fi indi lu mu bari bari itam tuuti na ci moom ndax sa diggante ak Cheikh Sidi Muxtaar mooy li mooy li ko li ko li ko waral diggante sëriñ Abdou Khadir ak njaboot sëñ Baara te moom tey jii mu doon sëñ Baara mooy li ko waral waaye li fa ma fa ma fa ma fa ma waxoon léegi rek fa laay jeexale sa jikko ak sa jëf ci njaboot ci njabootu sëñ Baara war naa indi ku ne fii ci ñun foofu rek laay jeexale kon sëriñ bi neex na mi ngi lay sant bu baax mi ngi lay gërëm bu baax te ni mu la sant itam rakkam yii mu àndal ak njabootam yii mu àndal itam ñoom ñëpp noonu lañ la sant ndax kenn ku ci nekk dina sëñ Moustapha dana fa toog mu jóg ñëw fekk si la fii te sa jikko moo tax mu fekk si kenn ku ne ci nun ñii dana jóg fekk si la fii te sa jikko moo tax mu fekk si kon sëñ baa ngi lay sant bu baax sëñ baa ngi sëñ baa ngi lay gërëm bu baax sëñ Modou bii nag moo moo moo waroon jël kàddu ki waaw bu ko defee li ci des mu yeggale ko li lay li ngay wax rek lay dëggal ci li nga ne sànniwul la guy mind léegi ci kaw corps diplomate yi dañoo ñëw ak mboolem këru diine yi bi ambassadeur yi waxee kilifa diine yi wax kilifa aada wax ba noppi ala barakatuhu ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax nuyoo bu ànd ak sant ak ngërëm ak u siyaare ci jataay bu tedd bi nga teewe ndax xoole wuñ la ak jëmmi Cheikh Sidi Moxtaar képp waaye dañ lay xoole jëmmi Cheikh Mouhamed Lamine ba noppi door war xool la jëmmi Cheikh Sidi Moxtaar ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di sant di la gërëm ak mboolem délégation bi nga àndal bépp tàmbalee ko ci suñ Cheikh Baara Abdul Karim ak suñ seex Ba suñ Mour Baara Abdul Xadim ba ci suñ Cheikh baar Abdul Ahad ba ci sëñ Abdou Samad mi ak suñ Cheikh Ndiaye mboolem ñi nga ànd ñëpp xam naa ñàkku ñu ne ci ginnaaw te gisuma leen di sant bu baax ci jëf ji nga xam ne at mu jot nga def ko ba fi sëriñ bi bàyyi ko ba nëgën mosoo koo jëlal te xam nañ ne amoo jot te li ci ëpp ci àll ba ngay ne. Mm-hmm. waaye danga koo jàppe na sa bisu bopp. di ci dàkk bëggu sa wajuru tedd wa Cheikh Sidi Moukhtar waaye di ci dàkk diggante Cheikh Mawal lañu baal ak Sëñ Abdou Khadre kon nag ñu lay santaat bu baax di la gërëm ca la weesu lépp waaye di la sant ci li teew ndax sax nit moom foo ko teg rek xam na ko te jàpp du ñu jàpp du loo wax rek yem ci waaye danga koy jëfe te bañ la xamee ba nëgg itam. wenn meloo woo lañ xam ci yow te it nga sant yàlla bu baax te xam ne cër bii luñ la fàggul la ndax dégg naa ci làmmiñu sëriñ ba tàyyi mu wax ne gërëm na la alhamdulilah te jikkoom moo nekk ci yow te loolu ku la xam ko ne xam ne loolu moo nekk ci yow ndax lii ñu la seeral léegi rek xaari ba jaxate ak lajjoor mm-hmm. ku ci ne daa seeraloon Sëriñ Tuubaa ne sëñ Tuubaa di ak dëddub àdduna mën naa ko nangu ndax àdduna du ko dëgmal ba noppi mu sànni ko. alhamdulilah kon ay ab àll moom ku ci mën a dëkk. xam nga ne doo ko bëgg àdduna te nag noonu la ci yéen waaye yaa ngi koy jëmb di ko suuxat sarak yu tedd yi itam. xëy na danañ jàpp liñ jàpp ci yow ndax sëñuñ ko koñ mhm. naa la sëñ bi daal daa sa kilifa loo ci fekkee loolu assistance mhm. waaye sa jikko nag ak li nga leen may sa bopp moo tax boo jugee rek ñoom ñëpp ñu ànd ak yow ndax xam naa ne kenn ku cere ci ñoom ñii rawatina adduna du ko yëkkati ci benn biir xam naa ne itam defuñ dara te defuñ ko ngir yàlla kon nag ñu ngi lay santaat bu baax dëgëram léegi laa ko wax sëñ bi Karim bi nga fi ñëwee léegi ñëw na fi ànd ak njaboot si baax mm-hmm. kon daanaka boo ko yónni woon sax doon na kenn ci ñoom ñi tam bu dee ci teewloon ñu xoole ko sa jëmm ndax li ma wax ñaari jataay yi nga toogee dafa tiis mm-hmm. jataayu Cheikh Lamine Bara du jataay bu woyof mm-hmm. ndax kooku xam xam Cheikh Mouhamadou Lamine Bara xam ne ku def nga toog ci jataayam rek boroomam kon nag ñu ngi suñ suñu diggee yow bu baax. di la xamal ne lépp li suñ gi jàppoon ci ñun. te muy ja loo xam ne adduna sépp xam ndax da ko wax ci làmmiñam. Mm-hmm. ñëpp dégg rek suñu bëriwutoon wax. daanaka boo ci génnee waxam yooyu lu néew la wax. Mm-hmm. wala waxaatu sax ginnaaw. Mm-hmm. kon yi ñuy waxaat yëpp wate màggal Tuubaa la kon lebal nañu bor boo xam ne mënees ko fay te ko fàtte mukk yow si jëm bopp itam bi jàppoon ci ñun nga jàpp ci ndax firnde ji mooy ginnaaw bu suñ bi bàyyi ko tuddi nga ma doom te danga ma ko tuddi ba nopp ma dul ko yëg tuddi na ma ko ba mu jàll te suba sa soxna ay dem boobu moom woo jégal ma ko ñoo suñ saa def na lu rafet ndax nee na li tax mu def ko mooy si digg ak suñ bi rek tax na suñ fa mu tudd xam nga di cedd kon nag ñu ngi ñaan bu bax jataay bi yàgg ci say loxo te mu ànd ak kàttan ba li nga ko bëgg a liggéeyal bëgg koo liggéeyal Cheikh Mawlana Mbara nga àndoo ko sarak yëpp ba lees lépp sotti seen xol naal yëpp ba nga sumbaat yenn naal te yëpp ñu ànd ko yow salaamaaleykum ولي ولطيف على الذي كرمه بي يطوف تسليم كاف خير ناف نفعا عن خير رافع على من رفعا بركة الباقي وللتي في على النبي المصطفى العطوف على الذي مني صلاة وسلام له من الله صلاة وسلام وجهت للمختار كل يوم قدم أمداين أزال لومي إلى النبي وجهت كل ليل قدم أمداين أزل نيني ربي عني من لو قائدي ومنطقي والفعل ووقائدي دفت الذي قراي لي أتابا وقاد لي ما لم ير الأقطابا وجعلي ما لا يراه خيري موجزة تبقى لأسن خيري إلي قاد الله في الدارين سينبي سيرني جارين نفعني النافع نفعا فاقا وقد مها عن جؤجي نفاقا سار لي كون رسول الله عليه خير صلوات الله يقين قلبي baada rabbi wal kitaab sirtu qadimahu wa zahza al itaab muhammadun xayru jamiil kawni wa kaana lii billaahi xayral kawni subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuuna wa salaamun alal mursaliina walhamdulillaahi rabbil aalamiin jërëjëf